ñoo woote woon janoo tas tas tas xibaar ak tas taskat xibaar yi pour wax sénégalais yi li xew ci marché bi loo xam ne ñoom comprendre nañu ko xamuñu ko parce que tey ji état prix yi fixé population dañu ne état wàññi na mais état buy wàññi daf ñu war a boole ñun ñi nga xam ne ñun ñooy jege population bi ñun ñuy boutiquier détaillant yi nga xam ne ku génn sa kër ci ñun ngay ñëw ku dugg sa bitik laan état wàññi na te xamuñu nu mu demee nit di la loi dafa tere ngay jaay à perte te ñun mënuñu jaay à perte parce que dañoo loué ay magasin di fay courant di fay di fay patente

mais bu ñu toog seen bureau rek fixé prix yi ne góor si jaayal yi te ñoom ñiy contrôlé duñ ñu rek la ñuy dem si boutique yi rek ngeen jëli seen xaalis dañuy ñëw rek fixé kii du ñu boo ñëwee nga jënd facture boo jëndee 1000 francs boo jaay jaayal 1100 francs mais ni doo ko bëgg nekk en règle bëgguñu sax bëgguñu nekk kii di def loo xamante ni état bëgg ko te nga bëgg a bokk ci li jàppale ci population bi moo tax ma bëgg wax ni tey boo xoolee tey ñun diwlin bi mi ngi dikkee 24000 francs boo ko jaayee 1000 1100 francs ça veut dire perte nga kon loolu du mun nekk moo tax ñu woon euh, journalistes yi pour ñu jàllale ñu pour population bi xam ne ñun yokk bi du ñun te ñun bi ñu sañoon état jàppale ñu fixer prix si grossiste fixé détail bi daal de euh, fixé si grossiste bi ak ci demi grossiste bi bu ñu ñun détaillant bi ñu jaay ñun tam ñu am dara parce que tamit mënoo jaay di perte tey boo xoolee 1200 francs la doon jar état na wàññi nga jox 1100 francs té lay bi tey mi ngi jar 24000 francs li ngeen def calculer bo leen calculer té aussi chaque sucre bi nga xam état du Sénégal dafa ne nañ ko jaayé euh, nañ ko jëndee ñun 28750 si grossiste bi légui boo jëndé ci si grossiste 28750 nga ñëw sa boutique nga jënd ay paquet mbuus nga mbuus ko détaillé ko loolu sa veut dire da ngay jaay nga perte té sa transport génn ci té aussi ñun dañoo bëgg tam bok ci li bi développer dëkk bi parce que ñun nous sommes des citoyens sénégalais nek ñoo xamante ñun euh, dañoo ñëw pour bok ci partie partie développement dëkk bi bëgguñu bokk ci loo xamante ni ah bu ëllëg dañ ñaan boutique yi ñoo def li wala ñoo def laa dañu bëgg nekk en règle kon état du Sénégal ak ministre du commerce nañu jàppale ñu toog wax ak ñun ñu xool lu mën a nekk ñu wax population bi nañ wax population bi bu waxee dëgg rek population bi dañ nangu ne lii la mën a jar mais bul wax ne toog sa bureau xam ne yow loolu mënul nekk nga wax population bi bu fay ñu ñëw yaakaar na ñun la te ñu nekkul ñun waaw tey lu waraloon suñu woote bi euh, ñetti mbir la benn bi li nga xamante ne état jël na ay ndogal le 24 bu ñu génnee nii si ginnaaw li nga xamante ne wàññi na ay lu mel ni ceeb diwlin suukar léegi nag si détails yooyu leen bëgg wax pour population bi xam dëgg bi fan la féetoo parce que gis nañ kat autorité yi ministre du commerce Assome Aminata jaata moom le président de la république euh, son excellence maître Macky Sall wàññi nañ wàññi bi nga xamante ne ñun def ñu xaw a jaaxal parce que ñun dañu jàppee ñun détaillants yi ñun dañu bañ a wàññi alors que loolu amut si naka la amut parce que nee nañ grossistes yi nañ jaay suukar 50 kilos bi 28 750 kilo bi boobaa daf ñuy dikkee 575 état dañu impose nañ ko jaay 600 kilo bi téeméer ak ñaar fukk mais mënuñu jënd kilo bi 575 diko jaay 600 état fàtte na dañuy fay ay transport dañuy dañ koy sol ci ay mbous sac bu ne dañ siy def frais d'emballage 1500 té sac sukar bi ñu ngi noron am 1250 bénéfice kon buñ ko buñ jaay sac sukar bi par dañ siy perte 1250 1250 250 donc huile bi aussi état né nañ ko jëndé ci grossiste 28 000 20 825 si ko divisé par 20 moy diwlin bu nek ci bouteille bi litre bi da lay dikkee 1041 boobaa état neen nañ ko jaay 1100 francs mais état mom xamul lu nek ci gros sisi demi gros actuellement demi gros yi Marseille marché yi ñu ngi jaay diwlin bi à 24000 24000 wala 23000 légui naka lañ koy jëndé 24000 diko divisé par 20 24000 divisé par 20 litre bi daf ñuy dikkee 1200 naka lañ koy jëndé 1200 diko jaay 1100 francs dañuy perdre 100 francs ñun na dañuy respecté état lépp li nga ne jël na si ay mesures pour li nga xamante ne mooy prix yi bees yi dañ koy respecté mais état balaa muy fixé dara jàppoon nañ ñun boutique yi tamit ay acteurs développement lañu dañu war état daf ñu war a jàkkaarloo ñun ñu wax ko carrément naka lañu amee prix yi si gros siis yi ba si demi gros yi mënuñu jëndee diwlin 1200 di ko jaay 1100 francs dañuy perte te fu mu toll nii mënuñu ko jaay tam 1300 amuñu si ndigal dañuy respecté état lu mu wax ñaari solution lañ fi bi àgg si ñun wala soit ñu fexe ñun tamit ñu bañ a jaay diwlin sukkar ceeb deetaaw parce que mënuñu jaay di jalgati mënuñu jaay tamit di perte kon maa ngi laaj euh, ministre du commerce Assome Aminata Diatta naka lañ koy def léegi si mbir yooyu si ceeb ak diwlin euh, sukkar bi ma ñëwal leen tamit si ceeb bi ceeb bi état dafa ne nañ jëndee sac bi 13225 euh, si mais fu mu toll ni loolu amul si marché yi marché yi ñu koy jaay sac bi 13750 euh, 750 si grossiste yi mbaa si marché yi mais naka lañ koy jëndee 13750 nga diviser ko par 50 kilo bi dikkee ñu 275 te état def nañ ko jaay 275 maanaam kilo bi ñu koy jëndee 275 Sénégal ne nañ ko jaay 275.